mooy kan gi yegsi na fay say facture moo ci gën gaaw jëfandi KP e local la ñun ñoo ko moom di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow,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 borom la 24 décembre digganteem ak ki nga xamante ne moom mooy Bombardier borom guddi guddi mbuur ah deux fois roi des arènes ñu war a bëre jamay kenn tëgg ko borom jam production waaye bébé jën aussi jour boobu dina ci bëre ak ama neex ki nga xamante ne moom mooy ordinateur bëre fa ak Ousmane Gandigal ak yeneen i combat yaakaar naa ne amateurs yi ñu ngi koy xaar di ko bàyyi xel Reug Reug nag gëj a bëre le 5 mars digganteem ak Sa Thiès war a ñëw rectifié fay bor bi waa Caaroy la Caalan ak dëkk yooyu comme ni mu koy ni mu koy waxee mbeelo ngi ngeen gis ñu suba bale ñu ngi leen koy toppal place ñu fii salle mu entraîné ba pare ñu war a waxtaan ak moom tuuti rek après ñu terminé këram rek maa ngi lay nuyu bu baax a baax bu lay bàyyi la nga nuyu ak mbokk internet yi ak amateur yi. waaw maa lay fay Lamine di nuyu assistance bi fi nekk yëpp di wax ginnaaw bi ñu sant yàlla julli Yonent bi. Mhm. di ñaanal sama papa ak sama tante yal nañu yàlla xaaral àjjana firdaws ak mboolem jullit ñu fa fekk ak ñu leen fa fekk. Hmm? di nuy waa Thiaré gi aw ma seen fay. Hmm. di nuy fukki penc ak ñaar yëpp aw ma seen fay ndax seen doom seen xarit moo am combat le 24 décembre ah. di nuyu sama gars yi ma àndal yëpp ku si mel ni Birane. Hmm? Euh, Dawur. Seex Euh, Dacia ñoom ñëpp maa leen sant bu baax di leen gërëm di gërëm sama coach Sidi du mhm. di nuyu mbëri caare géej yëpp. Mhm. li ko daggee si Père Khadim Ndiaye Père Khadim. Mhm. Khadim Ndiaye de Ousmane Diop Baye Mandione Issa Pouye hmm, bëri ndaw yëpp ñëpp ñoom Pambodj ah, caare yëpp daal bu ma li fay ñëpp maa ngi leen di nuyu ah leen wax nag combat bi seen combat la nañ ci ñëw jàpp bu baax a baax a baax ak Ahmed Deme ah. ñépp daal maa bu ma limee daal damay jum ñëpp ama dem ñëpp maa ngi maa leen wax ci combat yi wax combat bi seen combat waa mhm. waaw di nuyu waa Caalaan Jonwaar Ñoojoor Falia So Basar Basur Ngajoor Cinda hmm? Nangan Samba ah. euh, mat faafa ko mat sudu man looj ah. Fimela Coof Yor ah. euh, waa Kaolack waa Mbeelangic waa Ganjaay hmm? ñëpp daal maa ngi leen di bu baax a baax waa Sum ak waa Caaraloog waaw ah, maa ngi leen nuyu bu baax a baax di leen wax nag seen doom seen xarit am na combat ak jëlaa seen leen seen doom am na combat nañ ci ñëw jàpp bu baax a baax di nuyu capitaine Thiaré Gueye yëpp maa leen di si combat bi ah, di nuyu Ali Ali Naar lay oo si bi ah di la wax bi sa combat la nañ ci ñëw jàpp bu baax a baax a baax uh-huh. hmm? waa waa asalem abu asalem ah, ak soxnaam maa ngi leen di jàpp ndax komba bi seen combat la hmm? di nuyu euh, Leyti ak Mor seen maa ngi leen ñaan yàlla suñu borom defal leen jàmm. Hmm? ak Mor Sène maa leen di ñaanal yàlla suñu defal leen jàmm ndax dañuy sonn samay combat hmm? di nuyu ñëpp bu mu limee daal damay juum. di nuyu ñoom Ali New York you know Tata Assou ak ay doomam yëpp maa ngi leen di nuyu yàlla suñu borom defal leen jàmm ak su ak jëkkëram muy Alas eh, As sant naa ko bu baax gërëm naa ndax bu ma nekkee New York you know jàpp bu baax a baax. ah surtout Ali Ali New maa ngi lay nuyu ah di la nag yow dalal jàmm daa daa Canada maa ngi lay woo si combat sama xarit sama waay sama lépp maa ngi lay woo si bu baax baax nga ñëw jàpp si daa combat bi sa combat la. Ah, ak. Euh, maa ngi oo maa ngi oo euh, euh, sama benn xarit sama waay sama lépp ah muy waa. kooku moom damoy bàyyi ba si kanam. dinaa wax si moom ah dinaa wax si moom incha allah rabi. <laughs> incha allah du ci mën a ñàkk mais damay dégg ngeen wax fukki penc yeeg ñaar. Mhm. fukki penc yeeg fan ak wala mooy dëkk yi non lébu yi mooy fukki penc ñaar yi. Hmm, fi lébu dëkk waaw mooy lébu yi dëkk. moo doon fukki penc ak ñaar yi. yoo xam nga lan mooy penc. penc. waaw penc ndax penc comme. penc penc mooy ban. fukki penc mooy maanaam penc ci boppam penc mooy maanaam ñu nekk si taatu tefes gi day am ay yoo xam ne dañ fay toog comme di naan ataaya. waaw yéen a toog waxtaan. toog waaw teg mooy paay. loolu mooy penc. fi paay di fréquenté ci si si digg dëkk bi mais si tefes lay doon. bu dee lébu yi waaw bu dee lébu yi. toog naan ataaya waxtaan. you know looloo tax ñu penc. dëgg na solo dégg naa la nga woo mbaru caaro yëpp nga ni Pape Mbodj. Mm-hmm. loolu day mel day firndeel ni amu benn jafe-jafe parce que gis nañu mu def. non Pape Mbodj sama xarit la sama waay la. mooy brise de mer. waaw mooy brise de mer kooku sama waay la ndax lu tax ma ne sama waay la dund nañ lu bëree bëri yaa may dégg dund nañ lu bëree bëri làmb mënumaa jaxaseeg moom. chaque jour sama xarit lay doon. Mm-hmm. waaw maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko nag combat bi am la waaw. macha allah loolu am na solo te yaakaar naa ni mën nañu ci def tamit jàngat bu am am solo. nga jóge ci combat. le 5 mars sa diggante ak Sa Thiès. Mhm. perte combat bi. Mhm. jëlaat adversaire boo xamante ne moo gën a luur. Mhm. ki nga bari lool. lan moo tax souvent dañuy gis mbër bu jógee ci combat day jël koo xamante ne ñëw rek fel mu jàll. mais ñun ñooy làmb. surtout bu jógee ci defet waaw. ñun ñooy làmb làmb dafa am si ñun yaakaar man doonu ma mbër moo xam ne nu ma la ko mën a expliquer doonu ma mbër moo xam ne tey jii man ku ma xool rek danga naan kii daa war a doon roi des loolu yàlla suñu borom moo ko def. doonul lu may tiitaroo doonul lu may ndamoo yàlla suñu borom moo ko def kenn defu ko hmm. you know kon côté boobu dañ ciy sant yàlla bu baax a baax ñun dañoo war a doon waa des arènes te ci kattan suñu borom dañ koy doon lan nga bëgg a wane ba tax nga jël bombardier waaw bombardier suñu grand la suñu doyen la ndax tey jii def na fi lu kenn deful doon roi des arènes deux fois you know ba pare yóbbu làmb foo xam ne kenn yóbbu ko hmm. kon kooku amul lenn luñ koy wax dañ koy sant di ko gërëm si sens bi mu ñu may hmm. waaw mais sens bi nag bi mu ñu may maanaam. dama koy exploité. exploité mooy la mooy maanaam dañ koy jox cër bu moom lépp mais bu ñu tuggee si enceinte bi cër bi dañ koy tegee nele ñu jëflante maak ak moom ci kàttanu suñu borom. nan nga bëgg a jëflanteeg Bombardier. Bombardier waaw moom nan nga war a jëflanteeg moom. naa moom maa ngi dégg si ay yëpp yu ma seetaan du arrière mais bëgg naa mu arrière incha allah rabbi. arrière du soobee yàlla. yow Bombardier arrière lu Tyson arrière lu Yékini arrière lu arrière lu Modou Lo mhm. arrière lu ku mujj bëreel Eumeu Sène. ah arrière na Yékini kay arrière naka. non moo Yékini dañoo daje. non au sax arrière naka. au ah. contraire sax seen dernier combat moo dóor Yékini. non arrière naka arrière na le. <laughs> mais la Yékini est-ce que Reug Reug la. waaye Yékini mooy man rek yi Yékini toog nii di wax ak yow leer moo toog nii di wax ak yow. lan mooy prouver loolu. incha allah le 24 décembre dinañ xam Yékini la wala du Yékini incha allah rabbi parce que Yékini moo daanoon. Hmm. Bombardier trois fois. moo tax nga ne yaay Yékini wala da nga gis ni qualité yi nekk ci ni yëpp daje loolu ci yow. bien sûr ndax tey jii waxaluma ko sama bopp Yaya Diop Yékini moom moo ko waxal hmm. moo ko waxal boppam kon dafa nekk ci man. expérience bi mu doon bëree ak Bombardier ndax am nga ko. bien sûr expérience tey jii mënu tey jii nu ma la ko mën a expliquer man bu ma demee bay waxan euh, dem ci làmb di dafa expérience ndax Bombardier. kon man damay waye di mais mm. expérience moom moo ma ko ëpp bombardier you waaw li xale la ak mag xale bi moom moo ñëw def ful ak fayda lamb ji jeex ku ne dem yoonam kon yow bës bés da ñëw def yëfu xale damay def yëfu xale ndax xale la yëfu xale laay def ñëw bëreeg moom ci jom ful ak fayda yàlla suñu borom may ñu dem ñu doo xool leneen laaj naa ko ni ko Reug dafa mën a bëri ak poids si <laughs> teel ko Gris <laughs> cité ko Elton. Mhm. Jordan. Mhm. ak boole naa sax bébé Saloum. Mhm. mu ni moom bokkul ak luur yooyu na luur nee na luur bu mel ni moom mosoo bëri ak. luur bu mel ni moom mosuma bëri ak moom. si benn côté dañ ko kay nangul. ci benn côté dañ ko kay nangul. Bombardier matul cent soixante-dix kilos matu ko de. Gris 2 ñaata kilo la mu muy bëri ak man cent soixante-sept la. Elton bi muy bëri ak man ñaata kilo la. te boobu matuma cent vingt cinq kilos yaa may dégg mhm. Bombardier bu ñu toogoon ci balance lu may ëppale du ma dix kilos hmm? man tane mënu ma ëppale dix kilos ngay wax nii rek rek bu mu fàttee nay fàttal ko dara muy maanaam Bombardier boo woon ak Bombardier mi mënuñoo bokk as dugg na mag dugg na you know waaw te ku muy bëreel lu mu gàtt gàtt ma ngay nekk vingt cinq ans <laughs> yaa may dégg kon moom nay xalaat loolu ñu mu loon bëreel du ma rërëg bokkuñu rërëg mooy làmb bu duggee si làmb day neex mais moom mu ñëw rek bu duggee si làmb day neex bu bu duggee stade day jox amateur lu ñu bëgg bu duggee stade kenn du ko gis naan ko ci mbayam par boo ko bëggu sax da lay neex ndax bu bu defee yëfu làmb nga nekk kon man maay làmb. nga ñu doon bëreel rëg rëg ñim daan wala ñu ko daan. ñu daan ak ñi ko daan ñëpp kenn mën doon séeréer la. kon yow da nga jàpp ni ci biir làmb am nga loo ëppale Bombardier. <laughs> waaw bien sûr. Bombardier Bombardier benn mënu ma ëpp doole. ñaar maa ko dàq bëri téeméeri junni yoon bëre moom waxaale wu ma ko mënu ëpp doole tamit man tane sam euh, sunu benn papa doon na naan nit ki boo demee ba mat 100 kilos mën nga bëre ku mat ak 130 kilos. mais moom jàpp na ne nag fii làmb ji ba mu daj Sénégal góor ëpp ko fi doole de. waaw baax na ban daje dina xam bu ngi daje ba ronkuñ te téewante dina xam ne ni góor ëpp na ko doole te rakkaam la. lan nga bëgg yow kay Bombardier jarbaat ngay doon sax. waaw jarbaatam laa. léegi lan nga bëgg set bëre Bombardier sëqante ngemb comme ni nga ko defee woon ak Gris 2 ñoom Elton. Mhm. déglu mhm. wala lan ko ci bëgg. Bombardier. Mhm. dinañ bëre. dinañ bëre dinañ xeex. lu si bëgg rek amul problème. mais ci biir bëre laa wax. si biir bëre ngemb wala daw bu tànk. làmb lu mu laaj rek dama koy def xamal bu jëree maanaam xeex moom pour dànk dama koy xeex ak moom bu jëree bëre dama koy bëre mais bu mbaaj bu ma nee ñëpp ngeen may samay waa kër mën nañoo ñibbi. boo jàppee ci ngeen ma. waaw allah rabbi soobee suñu borom. pourtant day wax na ci biir wax nee na nee na bu sañoon arbitre da lay da lay bàyyi nga jàpp ba doyal arbitre soog a <laughs> wax na lii de. jour boobu la la lekk. ah la la ndékkee. jour boobu moom ci dibiterie bi la ñu yóbbu. <laughs> dibiterie lañ déggee xar nañu rayam yóbbu bi. waaw loolu la quoi ah moom maag bu mbar ji ay kal nañ. mu ni. Hmm. da lay bàyyi nga jàpp hmm. ba doyal. arbitre soo ko si nee na raw ragalu doyal. ok dibiterie bi mu doon lekk moo neex xam naa moo tax mu wax loolu. mais Bombardier moom moo la gën a xam bu ma jàppee nga mel lamb ji jeex si kàttanu suñu borom ndax bëri yi bokkuñu maa ngi la koy lëmtiwaat Bombardier mënu maa ëpp doole maa ngi la koy lëmti rek na xam boppam man lu ma gënaloon sax li ma gënaloon ci diggi dooleem ma daje seen moom hmm? waaw ci lay xam ne ni xale bi saf na sap yàpp mag nañ ko sol te bu téewee du baax kon yow le 24. Bombardier matul 300 kilos matul 250 kilos matul 200 kilos <laughs> yàlla baax na yàlla nañu yàlla may. tal ak fekke loolu la matul 300 dama kaa xam rek. man da ngay fooy 300 kilos. non dama kaa xam rek dama koy. dama koy def easy du dara si man ma du dara si man te new ma maanaam damay wàcc damay wàcc ba toog samay tànk jiw ak kooku matul loolu kon dañuy ñaan yàlla suñu borom bés bi ñu dem seeg jàmm yàlla suñ borom bañ kat benn am benn gàllankoor moom ak man bala 24 yàlla suñ borom may ñun dem lu sedd guy ndax boo xoolee jàmm xaalis bu bëri la def si làmb ji hmm? di ko wax nag félicitation jàmm ndax gis nañ bi xale yëpp liwee moom moo xuus jàll waaw dañ koy ñaanal yàlla suñu borom lu mu bëgg si bësam bii rek yàlla suñu borom defal ka toog bi ngay toog Kanda léegi am na ñu jàpp ne sax Reug Reug léegi dafa découragé sax ci làmb découragé man lu ma mënti am làmb moo ma may tubaab yooyu lu tax ñu bëgg ma làmb la làmb moo tax ñu bëgg ma yaa may dégg kon yàlla tere may découragé si làmb man dama war a am dama war a am lu ma dama am bor bu ma yoreel waa Caaroy Géej muy roi bi sama bët foofu laa ko teg mais du su bombardier est-ce dégg nga ma sama bët su roi boobu laa ko teg roi bi te dama ko war a indil waa Caare Géej xal man dama démb am démb démb sama émission am na ko woote ni dans deux ans couronne daa war a dugg Caare non day dugg sax incha allah rabbi ndax loolu lu ma gëm la lu nekk si man la yaa may ah, gëm la lu nekk si man la te waa Caare dañ kaa nam te allah daan nañ yàlla may gudd fan ak fekk roi bi incha allah dina ko jël yóbbu ko suñu kër. naka nga nar a ñëwee. bii passé xam moom da nga toppoon àll bi. loolu dara yëngal vitesse maanaam bii passé moom. da nga da da nga concentré woon si adversaire mais concentré woo ci amateur yi. Hmm. ndax le 24 dina gis Reug Reug boo xamante ne day ñëw jox amateur li ñu xaar ci moom. bien sûr man damay jox lépp man ku ñëw sama làmb doo doone sama sama tikki dama kaa sànni ndax damay joxe. damay def làmb lu war damay def lépp fecc lépp lu làmb laaj dama koy def man maa moom bis bi du bombardier bis bi sama bis la. parce que sëñ Bamba sama bis la bis bi. maa koy neexal maa koy yëngal ku fa ñëw sa ticket da nga naan ax ah, bu damay dolliwaat beneen ticket ndax loolu lu nekk si man la dafa nekk si man. li fi tafaatin ak ama seen def barki dem ci fecc da nga ko fi da nga ko da nga ko kii. waaw waaw baax na incha allah yow seetaan ma la 24 incha allah rabbi fils de moom moom fils de Babou Ngom. moomoo moomoo. Mbayang ak Mbayang fu ñuy fu ñuy yëngalee kay ma taj stade bi loolu moom lu leer nañu incha allah rabbi. dafa mel ni Mbayang am na lu muy def ci yow. waa Mbayang dañoo yàgg sama yaa booy boobu dañoo yàgg torop torop torop torop dama koy ñaanal yàlla su borom defal ko jàmm ndax du tey quoi 2012 ba léegi ñu ngi ànd kon loolu du benn du ñaari at dama koy ñaanal yàlla su borom defal ko jàmm Momo Ngom sama rakk la kooku tëgg boolewuñu non sama rakk la sama rakk la. sama xarit la sama waay la dama koy ñaanal yàlla su mu doon defal ko jàmm di di ñaanal papaam yàlla na ko yàlla fëgg si boppam si barki Seydina Mohamed di nuyu sama benn sama benn euh, gain bu nekk Canada Malick Malick Diawane borom Canada maa ngi lay siyaar di la wax nag combat bi da ngay ñëw combat bi sa combat la maa ngi nuyu say soxna ak sa doom yëpp di nag combat bi sa combat la fi may jeexal ak yow rek fi may toll nii est-ce neex na non instant bi nag ni mu daanoo nii est-ce am nga ci. Euh, lu non bu dee bu boo bëggee dégg dëgg daanu na ko waaw ndax boo xoolee li poids lourd nañ you know ñu doon neexal làmb ñëpp ñu ngi si arène bi est-ce léegi dafa xaw a rafte rafle poids boo xamee boo xoolee tey ji du sànne gis nga amaan na combat gala du ko fi bàyyi di dem bëri ci wax ay simple. Mm-hmm. gisuñu général Malika gisuñu général Malika mu ngi mm-hmm. blessé di ko ñaanal yàlla suñu borom defal ko jàmm moom tamit mu ñëw. waa mm-hmm. ah, xam nga lu ma sublié ndax làmb mooy li may wax rek mbapat dafa doon loo xam ne mooy keremu làmb mm-hmm. mooy tàggat xale yi si nga li nga bëgg am si làmb foofu nga koy demee amee ko nga doog a ñëw mm-hmm. kon yàgg naa génn ay champion simple waaw yàgg naa génn ay sampion chaque trois ans wala chaque quatre dina génne simple euh, dina génne koo xam ne tey jii kii ñëpp dañu am si moom yaakaar. Mhm. est ce que mhm. ah, mais loolu nag léegi dafay manqué. dafay manqué dafaa manqué. loolu ok comme dañu egg dañuy waxtaan bi ñen ngay woo ci combat bi. waaw Sexbe Ndiaye Sexbe Ndiaye Sexbe Ndiaye ah borom borom borom post caare yi maa ngi lay aussi combat bi Sexbe Ndiaye ah di la combat bi sa combat la gain nañ ci jàpp bu baax a baax di ko yeeg regroupement bi yëpp sa loxo laa ko bàyyi jàppal si combat bi di oo Malick Gakou di ko wax ñëwal nga jàpp si combat bi père yow suñu papa nga suñu xarit nga ah, di oo gori gori gori dokeer yëpp maa ngi leen di oo si nañ ñëw jàpp si combat bi. buur ah, ñëwal nga jàpp si combat bi ah capitaine yëpp maa ngi leen nañ ñëw jàpp si combat xam ne seen doom seen xarit moom mooy bëre nañ si ñëw jàpp bu baax a baax a baax ah. waa Espagne yëpp sama boy yi nekk Espagne ah maa ngi leen di siyaar gaaw leen nag ngeen commencé ñëw si combat loxo yi na ñëw sama boo yëpp nekk Espagne ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm ah di nuyu ah, Alinar maa ngi lay owaat si combat bi à maintes fois sama xarit sama waay sama lépp maa ngi lay oo si combat bi ñëwal nga jàpp si combat bi ah di Abo Fall ak soxnaam Nogay Fall ah Nogay Fall Abo Fall maa ngi leen di oo si combat bi wax leen combat bi seen combat la ah, waa aselem yëpp waa aselem yëpp maa ngi leen di oo si combat bi ñëw jàpp si combat bi ah waaw. Hmm? waaw. la grand Xaadim la grand maa lay woo si combat bi Xaadim ñëwal jàpp si combat bi ah combat bi sa combat la gisaguma la waa def sport ah di ñaanal grand lay yàlla suñu borom defal ko jàmm ndax sunu lépp la ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu defal ko jàmm di ka wax nag waaw kontaan nañ ci moom wa Sénégal ka fay kan gi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw. KPR transfert locale la ñun ñoo ko moom. di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko.